This is AM 930, WPAT Patterson.
The following ad contains shocking material. Listener discretion is advised. Is someone in your family playing a dangerous game of Russian roulette? Over 43,000 people die a year from drug overdose. 120 people a day. Five people every hour. One person every 12 minutes. 88,000 people die every year from alcohol abuse. Over 240 people a day, 10 an hour, one person every six minutes. Somebody you know may be next. Learn how to help someone you love get away from the drugs, alcohol, and bad influences. With the FMLA, people can take a leave of absence from their job and still keep it. Call now and learn how we can help you. 800 360 0314. 800 360 0314. That's 800 360 0314.
Homeowners, on a tight budget and living in fear that something in your home might break, a plumbing problem, an appliance breakdown, stove, refrigerator, air conditioning, a lot can go wrong. And when something breaks, your cash reserves are gone in a flash. Then it's more and more credit card debt. Don't leave it to chance. Protect yourself with affordable coverage from Listen Up America Home Warranty. Pay $400 for electrical repairs, or with home warranty protection, 100% of the repair cost is covered. Pay $580 or more to repair a water heater, or get home warranty protection and 100% is covered. Replacing an air conditioning unit can cost you $2,000 or more, but with home warranty protection, you are covered 100%. Stop worrying about repair bills. Get protected with Listen Up America Home Warranty. Call right now for a free quote. Everyone is guaranteed approval and the call and consultation are free.
Call 800 690 2175. 800 690 2175. 800 690 2175.
Certain conditions and restrictions apply.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم On behalf of the staff and management of Multicultural Radio Broadcasting, I'd like to wish the entire Muslim community in the tri-state area a happy, safe, and blessed Ramadan. Ramadan Mubarak wa Eid Kareem. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu.
The following program is presented by its producer, host, and sponsors.
الله من ميلي لخير رضا Bambay Kamil bari yëpp suq lañu Bambay Kaabal Bambay Kamil bari yëpp suq lañu Akbal sëriñ si naaqis lañu Bambay Kamil bari yëpp suq lañu Bambay Kaabal sëriñ si naaqis lañu Akbal sëriñ si naaqis lañu Bambay Kamil bari yëpp suq lañu Bambay Kaabal sëriñ si naaqis lañu Bambay Kamil bari yëpp suq lañu bal sëriñ si naaqis lañu bambay kaabal bari yëpp suq lañu bambay kaabal sëriñ si naaqis lañu bambay kaamil bari yëpp suq lañu bambay kaabal bal lislaam di jooy yëkkeet ba génn gàddaa ci soowu jant fépp mel ni làmbaar gàdd ay ci soowu jant fépp mel ni làmbaar ca Bamba dal di ñaan ci barke bi ni yàlla may safiihu kullu jiilee xaadimum rasul bi fii sodaane ma xaadimum rasul lu fii sodaane bala may xaadimum rasul du fi soda ane di sëriñ Mbàkke soxna loo may xaadimum rasul du fi soda ane ay ramu xarnu be
ausu billahi mina seytaani rajim bisimillahi rahmaani rahim barke borom Tuuba mbokki jullit yi mbokki taalibe ñu ausu billahi mina seytaani rajim bisimillahi rahmaani rahim ñu ngi nuyu kenn ku nekk saw tur ak saw sant di jéggulu bu baax a baax a baax a baax kenn ku ci nekk ñu ngi lay baalu ak ci weeru ku tedd wii ñu génn di ci baal ñëpp ak yàlla nañu yàlla boole jéggal di siyaar ñi nga xamee se ne nii ñu julli tey jii yàlla na yàlla nangu ñi war a julli subaat yàlla na yàlla nangu ndax yàlla ay nangu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi jiital ci siyaar bi Cheikh Mouhamadul Muntaxa Mbakke di ko ñaanal fan bu gudd ak gu wér waaye noonu la ñuy siyaare bépp kilifa diine goo xamee si ni yaa nga Sénégal ak ñu topp ci yow kon ñëpp a nga ca biir mbokki jullit yi mbokki taalibe yi kenn ku ci ne xam na ni weer wu tedd bi ñu gën yaakaar naa ni jëwriñ yi dinañ ñëw def ci ñi nga xamante ni kenn ku ci ne xam na ni suba la waa kër Cheikhul Khadim Cheikh Ahmed Bamba fas yéene julli ci kattanu yàlla ñoo ngi siyaar ñëpp tey jox ñëpp seen wàccuwaay ni ñu ko waxee yaakaar naa Serigne Pape Seyd Dramé war naa dugg si léegi waaye nag kenn ku ci ne xam na ne gan gu mag ak seen ci dëkk bi muy allah gi Serigne Takko Mbacké mi nga xamee seen nii ci liggéey bu rëy boobu ñu ngi koy séentu incha allah rabbi mu war a woote. noonu la ñuy siyaare bu baax a baax a baax a baax a baax a baax ki nga xamee seen niit jëwriñ yi liggéey bi la di sëriñ Masey Ndiir yaakaar naa maa ngi woo sëñ tàkko waaye jotuma ko sëñ Masey xanaa boo ko mënee kii rek incha allah ndax déclasse bee tax mu mën a gaawoon fatu noonu la ñuy siyaare bu baax a baax a baax sëriñ Pape Seyd Dramé moom it incha allah bu ñu déggee mën naa woote incha allah ñu fas yéene ànd ak yéen ba deux heures ci kattanu yàlla darajee Seydina Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam noonu lañ ko war a àndeek ñi nga xamante ni nii mooy ki nga xamante ni kenn ku ci ne xam na ni muy Alaaji Moodu Gay war a dugg incha allahu rabbi waaye Serigne Birima Mbuub kasaalika naka noonu waaye soxna Mati Diouf kon ñëpp war a dugg ci liggéey bu rëy bii ñu jëm yaakaar naa kenn ku ci ne xam na ni am nañ yeneen xew-xew waaye dees na ci ñëw incha allahu rabbi kon xam naa ni kenn ku ci nekk fa nga toog yaakaar naa ni tey jii kenn ku ciy déglu di nga dégg ndax Serigne Takko Mbacké day egsi na ci dëkk bi te képp ko nga xamee si ni yaa ngi liggéey liggéey Cheikhul Khadim Cheikh Ahmad Bamba ba Serigne Fallou Mbacké fekk si la kooku sa xel war naa dal bu baax mbokki julli di mbokki taalibe yi kenn ku ci ne xam na ni julli gi incha allah rabbi yi dix heures ku ñëwuti dina fekk ñu taxawal kon ñu ngi wax ñëpp incha allah dix heures la ñuy taxawal waaye nag ndigal la ñuy joxe ku mel ni Serigne Abdou Karim Sàmm ànd ko ki nga xamee si ni mooy Serigne Gora Gueye waaye ànd ko waa laxasaay ngir la di sëñ Modou Gueye di siyaar bu baax waa culture kenn ku ci na xam ne sëriñ Cheikh Amar ak sëriñ Mountakha Ndaw ci liggéeyu rafet yi waaye ànd koog jëwriñ yi di sëriñ Pape Seyd Dramé sëriñ Pape Makoddu ñoom ñëpp incha allahu rabbi yi kenn ku ci nekk war a ñëw ci li nga xamee seen nii mooy liggéey bi nga xamee seen nii kenn ku ci nekk ñi ngi ci biir te kenn woote wu ko ànd koog daayira soxna jaara boo tuddee soxna moomi seen dinañ ci ñëwaat waaye tëj ko ajaratu faama jéey ak soxna maam Asu Jóob ma topp ci ñoom xam naa ñoom ñëpp it war nañu ñëw dugg ci liggéey bi ñu gën cee leeral lu baree baree baree baree baree bari kon mbokki jullit yi mbokki taalibe yi yaakaar naa ni kenn ku ci ne xam na ni liggéey bii ñu ne liggéey la boo ko xamee seen nii day mooy li nga xamee seen nii loo ci def ñu defal la ko fa nga ko bëggee te dara du fanaan ndax da ngay xëy tekki sa bët kon day mel ni incha allahu rabbi yi dinañ àndaat ak ñi nga xamee seen ni ñooy waa Tuubaa ci kanam ci niñ ko doon defee. incha allahu rabbi yi ñu dégluwaat xasida tuuti kon incha allahu rabbi yi teewlu li nga xamee si ni mooy sànq si war a woote day mel ni bisimilah am na ko dugg si أعوذ بالله من ميل لخير الدار waaw bisimilah ñu leen siyaar de delloo siyaar baax a baax tey ti maa ngi am jaam jëwriñ jooju
ah ki de sa sa waay ayu joom la ah bàyyi bi bisimilah yaa ngi ci biir ak kasa ñu nii bu baax di leen siyaare ñu ngi lay siyaar bu baax a baax da jox sa wàcc waaye sëriñ ah di wala mboolem jullit yi waaw ñoo ngi baal ak jullit yëpp di leen siyaare bu baax ci weeru koor wi incha allah ñëpp dinañ ko dégg.
di ñaan yàlla yonte Cheikhul Khadim ci barke sëñ Muntaqa mi jiitu yoonu mu yëpp di leen ci jaamu ñëpp yàlla nangul ñu ko di jégalu ñëpp di baal ak ñëpp amiin amiin di am mbégte nag bu baax it comme euh, sa taxawaay ci ci ci euh, diine jeeg ak yoonu murit wépp ñëpp war nañ lay sant di la ñaanal wax dëgg yàlla am nga am nga cofeer lool ci liggéeyal sëñ Tuubaa te ñëpp loolu lañ la ci xamee kon nag lépp loo xam ne ne nga ci rek war nañ la ci jàppale ngir yàlla ak yonent bi sëñ Tuubaa yàlla na sa taxawaay yàgg waaw rafet nañu lool sa taxawaay bu loolu wéyee nañ ñu ngi mbokki taalibe yëpp yëpp di leen yëgal itam comme niñ ko daan defee rek suñ pap Dramé wax na ko sànq xam naa dina ci dellusiwaat ci julli gi ñu war a julli suba incha allah ñu ngi ci soññi taalibe yëpp di am rafet lool yi seen taxawaay naka jekk taxawaay bu rafet bu ñu daan def. ku mel ni sëñ Modou Gueye mi nga xam ne moo jiite laxasee ànd ko Moustapha Diop ak Baye Fall ak Balla ñoom ñëpp ñëpp taxawaay rafet na ñu ngi leen di sant di leen gërëm nañ ko daan defee bee ba ñu xam noonu lañ ko daan defee rek waa noonu ko. Abdou Karim waxee Pape Dramé waxee ko rek muy jiitu laar yi ku leen ko jox dañ na ko liggéey dañ na ko defal niñ ko daan def xale yu am jom la ñu bëgg liggéey bu lool lool lool te it ku ci lu ci waay joxe na la wóor ni de- joxe nga ko ngir yàlla ndax suñu koy dugal ñoom um fu ñu dara dara luñ ci dunu ci dunu ci um ku ci lu ci waay joxe daal na la wóor ni dañ na ko defal ci muuru koor yi moom niñ ko daan defee ci kàttan yàlla yoon defee sëñ Tuubaa ñoo ngi ci sant di soñ ñëpp daal kenn ku ñëw daal na nga ko bàyyi xel ñu ngi sant taalibe yi ci seen taxawaay démb ak bërki démb comme noonu nga waxee sëñ tàkko mi nga xam ñëw na fi ñu ngi koy siyaare bu baax ci ndigalal sëñ Abib la fi ñëwee ci ndigalal sëñ Touba sëñ Muntaka di liggéey boo xam ne bii Touba ci kanam moom ñëpp xam nañu moom ku bëgg a dem rek ci kanam ngay dem te Touba ci kanam loolu la ko tax a jóg kon ñu ngi ci woo taalibe yëpp bis boobu naan ñu ngi ci fàttali taalibe yi kenn ku ne na nga def loo mën ak loo mënut ci taxawaay ko taxawaay bu am solo ñu ngi ci fàttali ko ñëpp di am gan guñ séntu itam mooy suñu gan di sëñ jiilim sëñ Modou Bousso Dieng la onze wala le deux dina ñëw incha allah ci kàttanu yàlla ànd ko sëñ Kaba rakkam taxawaay bu mu daan taxaw ni mu ko daan waxee la ko daan waxee jëmmi sëñ Touba ko tax a ñëw muy Cheikh Moustapha Fallilou fedd ko la rek moom ci taalib bi yëpp ni ko ba waajum doon defee loolu doo nga ko indi kenn ku ne daal nee na tàllal loo loxo ni mu tàllale woon ni mu ni nga tàllale woon waajuram sëñ Modou Moustapha Fallilou loolu la taala waxee kon nag ñu ngi koy séntu ñu ngi ñaan ñu àgg ci ak jàmm ñu ñëpp ñu ànd ci taxaw nañ ko daan defee defee ko noonu.
dëgg la kon bu sëñ Saliou daal wax ji foofu la foofu la faranku laay li am solo daal mooy ñun ay murit lañu te ki nu yaakaar doy na yaakaar ki nu wóolu doy na wóolu muy Cheikhul Khadim ku ànd ak moom ku ne sam xel war naa daal. war ngaa góorgóorlu waajal soññi sa liggéey sa bopp ci jëm bopp ndax. boo xoolee li mu doon coono ak yi moom daj yëpp suñu jëm yi képp a tax ca te kenn ku ne seet nga sa bopp xam nga ni yëngu ci sa sëñ Tuubaa loo xam ni moo la ko defal loo xam ne amul lu payer lu mu soxla ak lu mu taxaw ñu ànd ca loola kon nag loolu lañ ko war a fayee loolu lañ ko war a lu ko njukkalee kon nag ginnaaw liggéey bi da ko fee bàyyi ñu sos soso woon ko ak mag ñi fi nekkan dee waa kër Sëñ Tuubaa yëpp ak ña ànd ak moom laxasaay ngir jëm yàlla ba liggéey bi ak si fii ñu ngi dajeeg moom lan def noonu loolu loolu moo indi liggéey bi tey ndax ba mu si jógee ak léegi yàgg na waaye liggéey bi daal yokk te nit rek ko yokk kon comme yàlla dinu taw feexal nu fekkee ko war na ma fexee ba liggéey boobu nu def ci sunu kam kàttan saa su ne waxtu wu ne kon nag ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp noonu daal yéen incha allah bu wees bu koor gi jàllee dañ ko woote nañ ko war gi soppi dañ jàpp bis. dañ ko leeral ñëpp boobaa suñu saal ko mën koo jot suñu ñi kon ñu ngi siyaare ñëpp di wàllu ak ñëpp soxna moom ñu seen. ñu ngi leen siyaare bu baax di siyaare mag ñi taalibe bi yëpp bàyyiwuñu kenn gone yi ak ndaw ñi jigéen ñi ak ak soxna yi ñëpp ñu ngi leen di siyaare jërë ngeen jëf suñu saal ñu ngi leen sant di leen gërëm. ñu ngi leen di dalal seen seen seen seen seen ñu ngi dalal seen tàkkoo ci dara taalibe di ko teeru di ko teeral kattanu yàlla yonte bi sëñ Tuubaa ñu ngi sant ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu jërë ngeen jëfati jërëjëf sëriñ Habib Diom yaakaar naa ni macha allah kenn ku ci ne xam na ni wax dëgg yàlla li ñu doon def lépp yaakaar naa ni leeral nga ko kon day mel ni sang bu tedd bi dafa nekk ci yoon bi bisimilah seex bi waaw bisimilah.
sa sali waaw bisimilah salaamaaleykum maaleykum salaam wa si rahmatulah.
sali ñoo ngi leen di ziare bu baax Papa Gora Samb taal bi Cheikh Amadou Fadal Touba Cincinnati ah waaw Papa Gora ñu ngi lay siyaar Papa Gora Mbàkke baal ma téye tuuti rek sang bee nekk ci yoon wi xam naa ni moom déclasse bee tax bul coupé incha allah dégg nga.
barkalla ok ça va. bisimilah.
salaamaaleykum maaleykum salaam sang bi.
waaw Mbacke Balla ñu ngi siyaar waaw ci sëñ Saliou waa sëñ Saliou waaw am na sàmm ñoo ngi lay ziar ñu ngi lay siyaar bu baax Mbacke di am mbégte ci yoon wi lool di la masal barakallah barakallah barakallah mbokk taalibe yëpp a ngi lay déglu Mbacke bisimilah barakallah noonu tam ak sa barke sëñ Tuubaa bisimilah asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatulah
ñoo ngi leen di siyaar bu baax a baax jërëjëf Mbacke ñoo ngi sant yàlla bu baax a baax di sant sëñ Tuubaa ci ñu ngi bokki jullit yeeg bokki talib yeeg ak bokki Amérique yëpp est-ce que
di am mbégte bu baax a baax ci fii liggéey bi toll waaye lu bëgg a yëkkati suñu kàddu rek tuuti ginnaaw bu ñu leen siyaaree ñëpp rek ci balu ak ñëpp ci liggéey bu mag bi ñu jógee ñaan yàlla mu boole nu nangul mboolem lu ñu ci def rek dañu teewaat ko ay at yu bari te bu ñëwee dàqal nu sama borom àggale yéen yëpp te defal ñëpp wér ñëpp am jàmm ñëpp am xewal xanaa gannaaw rajo dafay xaw a gàtt tuuti mu sant bu baax a baax rek bi mu ñëwee ci digg jërëjëf Sénégal Mbacke mën naa kii de jërëjëf Mbacke waaw waaw ñëw ba fii ak sa ngir ànd ak yéen liggéey Sëriñ Tuubaa bi di am mbégte bu baax ak xel mu dal nag ci bi nu ñëwee ak laata ñu ñëw ñu fekk yéenay taalibe yi toll fi ak yéenay bokk bi yëpp ñu di leen jotal nuyoo Sëriñ Tuubaa Cheikh Mouhamadoul Mountakha sëriñ mag bi di sàkk nu dolli koo ñaanal bu baax a baax a baax a baax yàlla àggaleel ko yéeneem man waxtu wu ne ma jàkkaarloo moom loolu laa koy wax dama ko naan rek yàlla na la yàlla àggaleel sa yéene ba barki démb bi moo koy waxaat mu naa ma loolu koy xamee naa ko ci yow bu baax a baax a baax ndax loolu it la ko waral moo di ne moom yéeneem la sëriñ Fallou bi daan wax rek daa waxoon ne sama yéene xatut ñaawut waaye sëriñ moom du mun taxaa loolu foofu la toll foofu la toog yéeneem xatul ñaawul kenn ku nekk leer na la ne sëriñ mun taxaa li mu yéene bu ko yàlla àggalee ñëppay bokk jëriñ kon yàlla na ko yàlla àggalee yéeneem àggalee yéeneem mbooleem lislaam bi dëgg la
waaye di wax rek bu baax a baax di nuyu bokki jullit yi bokki taalibe yi waaye di jël nuyoo bi di ko teg ci loxoy waa Mikaar di ci jiital ay imaam Serigne Khadim Bousso ak mboolem ñi nga xam ne ñoo seq liggéey bi seen jaraame ñoom ak ak mboolem ñi nga xam ne daal ñoo yor liggéey bi te nekk ci dëkk bi ak biir Amérique yëpp ndax lislaam bi mu ngi dox ci réew mi bu baax a baax waaye xam nañ ne jullit ji fi nekk maanaam dañoo amuk dogu am pësteef moo waral lislaam bi di doxee nii waaye réew mi bari na gàllankoor yoo xam ne bu dul woon pësteef kon lislaam bi fi mu agsi mën na fa bañ a agsi léegi est-ce que kon noo ngi sant ci loolu ñëpp di ñaan yàlla yëpp doole noo nangul doole doole lislaam ba li mu bëgg li ñu bëgg ci ci liggéey bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam indi woon ñu àggale ko fu mu fu mu gën a kawe njort donte ñëpp xam nañu ne dana jëm kanam ndax sallallahu alayhi wa sallam liggéeyam mat na sëkk est-ce que faaw rek lu àdduna yàgg-yàgg ñëpp dañuy mujj nangu baa bokk ci ñëpp dañuy nangu waaye ci biir loolu it Sëriñ Tuubaa mi nga xam ne moom loonu yàlla féetale mu doon koo xam ne it def na ci liggéeyu boobu yi liggéey boo xam ne yombut kenn ku ne xam ne suñu borom tawfeexal na ko waaye xaasal na ko waaye moom it nangu naa yenu liggéey bi ba yàlla fayee ko li mu ko ci fayee ñëpp xaj ci biir liggéeyam boobu nag ñu xam ne mënta ñàkk am faaw li li mu liggéeyal yàlla yàlla dina ko fay macha allah bon da fay na ko ci bari bari waaye des na lu loo xam ne àggul sax ci takk deeru li mu ko war a fayee waaye ñun ñëpp ñu xacce dëgg la ñu ngi ci sàkk nu gis nag bunt boo xam ne dafay tax a gën a jë- mën a jariñu ci Sëriñ Tuubaa yàlla dimbale ay bokki taalibe ñu am xalaat di sottante di diisoo ba bokk benn xalaat ci ne nanu àndandoo liggéeyal Sëriñ Tuubaa muy Tuubaa ci kanam bi li nga xamante ne bi xalaat yi ànd na ak ubbeeku na ci Sëriñ Fallu Njaay mi nga xam ne moo sosoon liggéey bi di ci jokkoo kilifa yeeg ak mbokki taalibe yi ñëpp bokk xalaat nekk am nañu yéene parce que boo xam ne liggéeyal Sëriñ Tuubaa la waaye loolu ci mànkoo ak bennoo lañ ko mate ñu yaatal liggéey bi ba yàlla dogal euh, mu ñëw ci sëriñ ab yi ku ko ci xam.
sëriñ Sàmbu sëriñ ab yi lu ngeen ma sas rek naa ko sasoo. waaw dugal naa ci téeméeri junni.
waaw Cheikh Abdou Karim Cheikh Abdou Karim moom yàlla na ko yàlla doole dimbale Macha bakaay mi axla yàlla na ko yàlla doole dimbale parce que fam ci liggéey bi sori na dëgg la bi nga xamante ne bi kaddu yi jóg na ba nga xamante ne bi ñëw nañ sëriñ Abib moom Cheikh Amadou Fadal mu daal di indi xalaatu kenn ku ne joxe ñaar téeméer par weer bu ñu ko defee muy ñu nekk donte ab bu ñu amee ba def fexe ba am ñaari millions muy kenn ku ne bu joxe ñaar téeméer par weer ñaari milliards la ñuy am loolu mën naa liggéey dañu bëgg a liggéey at mi di ñaar fukki milliards ak ñeent ñëpp commencé ko rafetlu ñu ne kon nag nañu yaatal liggéey bi ñu dem ci Serigne Bassirou moom Cheikh Abdoul Khadir yàlla na ko yàlla doole dëgëral moom gannaaw Cheikh Sidi Cheikh Sidil Muxtaar mi nga xam ne moo fi nekkoon di Serigne Touba yàlla na ko yàlla àggali yéeneem fa mu nekk dolli koy lee sàmm teg loxo ci njabootam daal di daal di moo waxoon ne Cheikh Moussa Bachir mooy samay loxo mooy samay tànk mooy sama lépp moo taxoon kon ñu ne gannaaw dañoo bëgg a dem ci moom nan jaare ci moom bi ñu ñëwee Cheikh Moussa Bachir mu yaatal nangu daal di moo sax moom sax moo indi ci liggéey bi nooru daare ni ndax tuwaa ci kanam li ñu daan wax moo ci indi ci nooru daare ni macha allah ñu daal ne kon ñeme nañ léegi gannaaw ñeme nañ léegi nag nañ dem nag ci bunt bi mu Cheikh Moussa Mountakha ba ñu ñëwee moom daal di def nii mu def rek bunt bi daal di ubbeeku ba ñu waxee dañoo ko ñaar téeméer par weer muy mu at mi ni ñaar fukki douze mille francs mu daal yëkkati ci boobee di fukki douze mille joxe est-ce que
muy daal di ñuy wax ne benn bi sama bopp laa ko joxal juróom-ñeent yi ci def bépp murit bu am yéene ci amut ma yéene ma yéene waale ko ci kooku kon xam nga ne loola bunt daal ne feeñ ñu door ñu door a àgg nag ci asidi Muxtaar mu daal ni kon dem leen ngeen liggéey liggéey li dox di dox ba liggéey bi agsi ci loxoy Serigne Mountakha mi nga xam ne moo doon Serigne Touba tey te booba dafa amal kilifa léegi nag mooy mooy yëg ñëpp mu daal di ne nag da fekk dañu ñëwaatee ci moom di yees liwaat ndigal bi mu daal di wax ne faj liwaat naa sama laxasaay ci biir liggéey bi ba ren jii ba bu dëkk ba dafa joxe woon fukki douze mille ren téeméeri douze mille la Serigne Mountakha jox wallaay rasim ren joxe na ko ba noppi téeméeri douze mille la joxe daal di liggéey bi dafa wax moom bir na ko ne am nga yàqin ci ne liggéey bi Touba ci kanam bi dana dem ba weesu fi fi nga foogee rek dana dem ba weesu ko wax ne mën nañoo dem ba Touba ci kanam mën naa dem ba luy war a defati ci dëkk bi Touba ci kanam yo te mooy Sëñ Touba gannaaw moom mi Sëñ Touba nag dañ doon dàkk bëgg Sëñ Touba moom mi Sëñ Touba dugg na ci biir liggéey bi te mu jaral ko loolu toll ko noonu moo waral bi nga xamante ne bi adduna bi ñëpp ngi yàq liggéey bi waa Amérique nag daal di jël bis daal di ne ñoom it dañoo bëgg fas yéene yaatal liggéey bi ba ak Amérique gépp jot ci man gëm naa ne Amérique bu fekkente ne ñëpp jot nañ ci daanaka li ñu war a soxla ci dëkk ba ñoom buñ mënta def lépp it mën nañoo def genn wàll bi mbaa kaar bi lu mu néew néew kon moo tax bi ñu wootee wax ne dañoo bëgg a taxawal bis bi ba waxtaan ci sëriñ sëriñ Abibu waxtaan ci waxtaan ci sëriñ Abdoulahat moom sëriñ Abibu ak sëriñ sëriñ sëriñ sëriñ Abou bu sëriñ xar moo yoroon rek relation extérieure sëriñ sëriñ sëriñ sëriñ Mat Seck nekk fii ak mboolem kilifa yi nga xam ne ñoo ngaan si liggéey bi ba ci sëriñ Abdou Abdou Fatah bi Guèye mi nga xam ne léegi moo doon président ñoom ñëpp ñu mën a si àndandoo ci rek kon nañu leen jëmmal ci seen bis bii taxaw si ba mu gën a jëm kanam bi ñu waxtaanee nag xam ne ñoom xëy na sëriñ Abdou ak ñoom seen i tànk gis na man donte samay tànk gis na it taxawoon naa ci taxawaay boo xam ne mënatumaa mënumaa gànt ci ne kaay demal nu fenn ci liggéey sëriñ ci wàll moo waral ñu ànd jóg ngir ñëw jàppale leen ci liggéey bi ak taxawu leen ci ak indi leen seere sëriñ bi ak it ñëpp xam ne ndigalu sëriñ bi moo ñu yëkkati. est-ce que ngir ñu ñëw ànd ak yéen liggéey bi ci bis bi. wax naa ko ci audio bi ma doon wax tànk nii ne keroog di leer ànd na ma ak sëriñ Abdoulaye Hatoum sëriñ Habibou ak sëriñ Habibou Mbacke ñi nga xam ne mooy mooy yéen liggéey bi ñoom ñoo xam ñoo ngànk liggéey ñu ànd dem ba toog ci kanam sax mu taxaw yëgal ko yoonu Amérique bi mu rafetlu ko daal wax ne ñoom it am nañ ci wàll. waaye bitim réew am nañ wàll ci liggéey bi daal ñoo demal te ñu yàlla na yàlla defal la ca tawfeex defal ko mboolem liggéey bi boole ko mboolem boole ko mboolem lépp fépp ci am yéene yàlla daal di wax ne may maa ngi fetli ko waat ni ma leen waxoon rek waxtu bu ne maa ngi ànd ak yéen liggéey bi kon gannaaw moom sëñ Tuubaa moo wax loolu kon muy dem noonu indaale kàddu yooyu bëgg ñëpp dégg ko xam ne jógunu ngir suñu coobare bopp jógunu ngir suñu bàkk bopp dañoo jóg ngir ndigalul sëñ Tuubaa ñu indi fii yaatal liggéey Tuubaa ci kanam kon noo ngi ci woo bépp jullit di ci woo rawatina taalibe sëñ Tuubaa yi rawatina soppe sëñ Tuubaa yi di jiital ni ma ko waxee woon sànq ñi nga xam ne ñoo ñooy ñooy jëwriñ ñi daayira yi mu nekk ci mboolem Amérique nañu xam ne lii seen biir ndax liggéey bi doonul liggéey bu genn kër kër Serigne Touba yëpp ko moom ñu jëmi Serigne Touba ji doonul kenn it na seen ab yi bu mañ ciy tëj yàlla baax ko ak Serigne Touba mu génn ci mu génn ci xalaatam ndimbal la ci moom waaye taxul mu moom ko Serigne Abdoulaye xam moom leen toog ci moom nga xam ne moom la leen teg muy jëwriñu liggéey bi taxul mu moom ko Serigne Mat Seck moomu ko Serigne Touba Mat moomu Serigne Cheikh Mbacke ak ñi nga xam ne ñi ñoom ñoo ñoo nekk nag liggéey yëpp di kilifa moo leen duggoon lim du mooy man dawate ak Fadilou Ndiaye mi nga xam ne moo sosoon liggéey bi ci seen ay bataan ñoom ñu ko jiite tey moom gaj ñoom ñu ci nekk ñëpp moomu ni ko jëm jëm seen ci waa ji moo ko moom ndax damay wax ne képp wax na kii taxaw na ngeen ci liggéey bi bis dina ñëw ngeen bokk soxla Sëriñ Tuubaa bu boobaa da ngeen koy bokk dem yéen ñi kon nañ jël Sëriñ Tuubaa rek teg ko ci kanam pour lu moom yëf yi tax Tuubaa gee mënee si koo ñàkk defar te kenn ku ne xam ne ak bëggam fa mu tolloon Cheikh Mountakha mi képp li mu wax ñu ñëpp dañ ko war a dégg ku dem ma dem ku demul ma dem te mooy Sëriñ Tuubaa kon ñun bëggunu lu may dem nañ fexe ba boobu na fi baax boobu na fi baax bi mooy fu mu àgg ci biir Sëriñ Tuubaa bi nañ ko ànd ak moom mooy suñu fu mooy suñu sutura te yéene bu àggee suñu yéene day dugg biir yéeneen jooju kon Sëriñ Saliou loolu bokk na ci kàddu yi nga xam ne dañu woon dañ ko dugal ñëpp dégg ko ñu xam ne liggéey bi daal dimanche ak jàmm bu ko yàlla dogalee nan fexe ba mbooloo mi fu waaye nee na nga ñëw ku mën a ñëwal teewal sa jëmm moo gën ku mënta ñëwal teewal sa jëmm yi fexe ba la nga am te man ko ci ngir dugal ko ci liggéey Sëriñ Tuubaa bi ne def ko ci est-ce que
ñëpp bokk ci ndax dañoo am yéene ñëpp am jariñ rek ñun ñii ñëw fii li mu liggéey bi la ma ca doon dama koy wax adduna bépp di ko dégg waxtu bu nekk ci laa bokk dëgg la waaye bokkuma ci jëwriñ ci bokkuma ci jëwriñ bi baatu mooy russie ya nga xam ne maanaam fa nga xam ne fa nga xaalis day dugg sama signature du ca dem numéro compte yi sama tur nekk direct comité directeur ba nga xam ne ñooy jiite sama bokk bokkuma ci waaye nag damaa féetewoo fu waaye ne ci àdduna bu moom wala mënee jokkoo yow danaa fexe ba nga dégg liggéey Sëriñ Tuubaa bi bokk ci ndax xam naa bir na ma ne lu baax la te bëgg naa ñëpp jariñu loolu mooy ñëpp ñëpp dem ba jox ma ci cër bi ñu mel ko ci yore lii moo ci lii moo ci sama kii dara dara dara nekku ci lu may liggéey Sëriñ Tuubaa rek la te kenn ku ne xam na ne Cheikh Amadou Mbacké waxoon nit ñi boo leen di laaj na nga leen laaj lu ñu am di ko dugal fu ñu xam
dëgg la loolu mooy li ci nekk Tuubaa ci kanam kenn ku ne gis na ne laaj nañ waaye suñ ko defee gis nañ ko waaw ñu dimbale néew ji doole yi ñu jéem a defar dëkk Tuubaa bi Madina gi ak Makka na mu mel ña ko defar ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lañ defar te ñooñu kat bu ñëw yàgg Sëriñ Tuubaa positif te itam digg Sëriñ Tuubaa bi taalib yi rek war defar dëgg la
Touba ci kanam nag day loo xam ne li surveille door a génn waaye nag jëpp Touba ci kanam ndax borom dëkk ba mu sancee daraan jëmale dëkk bi kanam Cheikh Moustapha mi nga xam ne moo ko fi jëkk a wuutu alhamdulilahi rabbil alamin lu mu mën def na ko ci ndax Touba ci kanam ñoo xam ne sax bu ñu ba ñu waxee Touba ci kanam Cheikh Moustapha Moustapha moo ko sos ak njaboot borom Touba gi topp ci moom ñëpp ñëw kenn ku ne teg sa tànk ñi toogee xalifa ak ñi ko toogee ñëpp kenn ku ne loolu moo sa doon ci yitte naka jekk kon nanu bàyyi xel bis bi bu baax a baax te teew ci ci fas yéene bu ñu ci jógee àdduna bépp xam ne Touba ca kanam ñëw na Touba ca kanam yokk na ndax Amérique kat def naa ne fii lu bu bu àdduna bu ñu doon kii àdduna bi mel na ne moo war a moo nekk ci kanam kon fii waruñoo def ginnaaw ci liggéey bi ñoo war a jiitu ñëpp Italie yi def nañ ay bis ñëpp réussir na ñëpp sant nañ te kawe nañ jot Mali def nañ waaw waaw kawe nañ jot waaye bis yooyu yëpp jàpp naa ne la muy aw aw yoon ba ñëpp xel dal ca Amérique war nañoo mën a def lu jubal ci seen def yooyu macha allah kon noo ngi leen ci xaatee di ci xaar di yaakaar ñëpp ci ñaan yàlla mu àggale yéene bi ba posture bi bi ñu jógee ci sëriñ bi ak yéenam ci mooy danoo bëgg aajo ju ñu fekk ci dëkk bi yàlla fekk ko yàlla yàlla fekk bàkk sëriñ Tuubaa parce que si bàkk sëriñ Tuubaa bi attan lépp waaw su ba ñu tàggoog sëriñ bi loolu fas te am nañu yaakaar ci ne lam ca fas bu nu suñu posture dimbalee mën na ma gëstu loolu lépp kon fu waay nekk rek ci dégg kàddu bi ci Amérique yëpp noo ngi lay woo la xaar lii rek moo doon suñu yitte moom yëkkati bëgg a reeteet mbirum sëñ Tuubaa kenn ku ne jot ci kenn ku ne jariñ sëñ Tuubaa njariñ rek lañ dul jeex dëgg la te ñëpp xam nañ waaw sunu bàyyi bu baax sëñ Cerno bu Bakki Jalongal bala waxtaan ndeysaan tubaarkal yàlla na ko yàlla dolli wér day wax ne kenn mësta di courant sa morom boo noppee abal ma penku ma julli wala boo noppee abal ma faatee ji ma julli ci ñëpp xam nañ dëgg la sëñ Tuubaa ci biir loolu rek la nekk wallaahi waaw kon nag sëñ Saliou yëf yaa ngi noonu xam naa ne bu ma ko toppee li ci sama xol ak sama yéene ji mënu ma ko wax lépp waaye loolu it li ci sama xol li ci sama yéene mooy xolu ñu nekk ci liggéey bi ñëpp noo ngi noo ngi noo ngi noo ngi noo ngi noo ngi gërëm bu baax sëñ Cheikh Cheikh bi nga xam ne moo nekk toog liggéey bi ci Amérique ndeysaan ak sëriñ Massé Ndiir ñu mu àndal waaw jàmbaar la sëriñ Mbacke Mbaye ñoom ak ak sëriñ Mat Seck yi ak ñëpp ak soxna Dikkel Badiane nga xam ne moo nekk ci bopp jigéen ñi moom itam ci jàmbaar yoo xam ne tubaarakallahu waaw waaw waaye daal Tuubaa ci kanam la ànd koog moroomi jigéen ñi nga xam ne ñoo fi nekk soxna naateeg soxna Kumba Njaay ak soxna Njaay ak soxna Kumba Jóob ak ñëpp bu ma ko doon lim du ma jeexal waaye nañu xam ne ñëpp daal Sëriñ Tuubaa mi umpale wut teg na leen def gis na kenn ku ne na nga jàpp ci liggéey bi macha allah kenn ku ne jàpp nga ne yaa moom liggéey bi waaye waaye loolu mooy dëkk kenn ku ne bu jàppee ne yaa moom liggéey bi liggéey bi dana dox aw sàkket bi ñu ko doon yëkkati bu ku ne jàppee fenn bi suuf te bu boobaa lépp jóg sëñ Moussa Dong nee na liggéey bi bu mu laal suuf kon nanu fexe ba liggéey bi sëñ Tuubaa bu mu laal suuf est-ce que Saliou bisimilah jëriñu jot na Dëgg la.
billaahi wallaahi taala jëriñoo Sëriñ Tuubaa jot na jot na nanu dimb nanu nanu góorgóorlu noonu noo bàyyi woon suñu këri ndey ak suñu këri bàyyi ñàkk ña li suñ tubaab am suñu ko suñu maam amoon bu ñu jógee suñu këri maam wante dama sant pàcc bu tuddee doon ci suñ tubaab dara lu muy ay taalibe bi rek leen mën a doon mën a ca jëriñ ndax moom dimbale nanu ba wax na ay ña noonu jege fi mu fi mu nekk ak ki mu doon awma rek awma doom awma jarbaat li ma amee ku ko fi wut si may si lépp ku ko fi wut si jëriñ dara jotuñu dara kon Sëriñ Tuubaa bokk boole wu ci pas pas moo ci tax a jariñ ak gëm ak liggéeyal ko liggéeyal ngi ñu nekk dëgg la te jàpp nañu liggéey bi mooy bi gë- bi des liggéey Sëriñ Tuubaa ndax ab dëkk Sëriñ Tuubaa lépp mi mi mi def na ko waaye dëkkam bee alxuraanam jee ñu koy jàng nga xam daari kaamil bi jeexoon Sëriñ Tuubaa ko jëkk a sos mu kenn mu mës tax daari kaamil mu sos ko ci gànnaar ba léegi saa bu ne fu jàkkaam nekk wala jumaam juróomi kaamil yi du manqué noor du manqué nawet ñooñee Touba ca kanam ñu ngi leen di jéem a yoreel ab dund weer wu ne am nañu lu leen di jox loo xam ne ñu ngi dañuy jaayante di ko def néeg bi doole ci Touba ñu ngi leen dimbale di leen wutale ndox di leen wutale ay daara daara yi daara yi ñu ngi leen defaral kenn ku ne bu ñëwee sa daara laajee loo gën a soxla sa daara ñu defal la nga ne mbaar laa soxla ay wanag laa soxla néeg laa soxla Touba ca kanam engagé bu defal la la amul benn dërëm boo xam ne Touba ca kanam da koy def ci lenn kenn ku ci ku ci ku ci ñemee fanaanoo benn dërëm it ci sa poos ñu ngi jeer liggéey Touba ca kanam bi amul loolu la sëñ bi waxoon ne dafa bëgg liggéey bu dërëm bu dugg ci biir Touba moom néew bu dugg Touba ñooyam dootu génn lu dugg ca kees Serigne Touba yi dootu génn liggéey Serigne Touba rek lay def amul dara lu ci lëndëm ku ci nekk ci groupe yi it boo xoolee da nga xam ne benn dërëm bu dugg ci Touba ci kanam buy uf ci ma sàmm wala mu jàdd ci ma demb amul waaw kenn ku ci nekk it da ngaa defe ne yow rek yaa moom liggéey bi te moo loolu mooy dëgg Serigne Touba kat li ko may lii mooy yitte gi mat fekk ndax bi mu ñëwee fekkoon nañu baax bari fi waaye dafa ñëw mel ne fekk fi kenn. tuuti ko rek dëgg naa yéen si sallallahu alayhi wa sallam moom dem si sallallahu ba mu am li mu am. kon nag ku fi nekk da ngay jàpp ne kenn ñëwul ci sa kanam ku dul yàgg Serigne Touba parce que yéen a ngi ñoom.
dëgg la bu kenn gis ma sàmm bu kenn gis ma demb nan gis Serigne Touba rek.
dëgg ñu la ko defee li ñu bëgg daan ko am. yàlla noonu yàlla doole di abdoulaye suñu yéen a men maa ngi nuyu bokk ci liggéey bokk ci arab yëpp woo ñëpp di leen déggandiku bëgg bis bii daal moom na doon bis boo xam ne ba adduna tukki lañ koy wax waa sëñ bi waaw Mbàkke ñu ngi siyaar bisimilah jërëjëf maa ngi ñaan Eh, Mbacke.
maa ngi dolli dëgg waaw.
ñoo gis ambulance yi daw Mhm, sëñ bi ñu ngi gis oto mbarit yi daw mhm, sëñ bi ñu ngi gis benn yi sëf ay xéewal mhm, di ceeb di dëwlin mhm, Mbàkke fenn fu ca nekk ñu di fa taxaw di wàcce mhm, ñu teg ko ci loxol ki nga xamee seen nii day mhm.
bu dee ci oto yi maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Baabul Muridina waaw waaw.
sëñ bi Mhm, fi nga jaar mhm, am na ñoo xam ne gàccee ngàllaama nag mhm.
ndax sang bi bari na bari na bari na bari na bari lool bari na bari na.
waaye Mbàkke fii nga jëm si Mhm, ñu fas ko yéene ànd ak yow Mbàkke mhm, bu la neexoon yabale mhm, sëñ Fallu waa ko fekk si ñu mhm, sëñ bi li nga wax day mhm.
jóge na ci sa xol waaye dugg na ci suñuy xol alhamdulilah sëñ bi waa dëkk bi safoo la lool te namoon la lool nag bu dul lii alhamdulilah kon nag Mbàkke alhamdulilah.
foofa jaar te ndam am fa Mhm, ñaanal ñu nag fii nga xam ne ne mooy dëkk bu mag bi boo fi jógee ku ne xam ne fii mooy dëkk bu mag bi yàlla na ko yàlla defal sëñ Tuubaa.
sëñ bi dégg nañ lool ndax liggéey ba leer na trop yàlla yàlla na jëm kanam yàlla na jëm mbokki jullit yeeg taalibe yi ñëpp a ngi déglu kenn nelawut ñooñu nga lim ñëpp sëriñ sooy bu sekk gàcce nga laam ak soxna digal waaye sëriñ ma sey ndiir ñoom ñëpp kanam. Mhm, sëñ bi nii la ko sëriñ Modou Fall Baye Fall ñoom ak sëriñ Abib Diom mag ñi nga xam ne ñoom sëriñ waaw ak sëriñ Abib Diom mi du génn léegi dégg ni da ngay dugg si rek moo tax mu daal di dagg la mu doon def lépp Dëgg sëriñ la, Abdou dëgg la.
Gueye sëriñ Cheikh Amar sëriñ Pape Dramé ngi ci yoon wi war a jublu si kon sang alhamdulilah.
bi yaakaar naa ni li nga ñu ñaanal dinañu jël yàlla nañu yàlla yóbbu ca bis ba lan nga ñuy déggaat ci nga xamee si ni mooy ñaanal gi ñu tàggoo ko tàggutoo boo xam du tàggutoo Mbàkke jërëjëf waaw dëgg la dëgg la li ma wax sànq rek ne dëkk bi donte gëj naa fi biir na ma ne. ay jullit ay jullit a ngi fi. ay taalibe ngi fi ñu yaakaar sëñ Tuubaa ñu ko bëgg li ñu ko doy loo ngi fi.
dëgg la loola moom loola moom ku fi mas a ñëw rek teere nga loolu dëgg la ndax sëñ bi ab liggéey mat na ab cëraleen it mat na kenn ku nekk tibbal na la bala ngay ba ba lam la jox doy na la sëkk mboolem ñu koy tuddoo ñu sant sant wee ñu sant ñeneen kon ku fi dem ci barab delluwaat fa rek da nga faa gis lu tax nga dellu dëgg la sama kalaas gi mel ne ku mel ne ku mel ne man ñu dugg Amérique naqari gi Amérique taxu ma fee gëj dëgg la ñàkk fee gisu ñàkk fee gisu taalibe taxu ma fee gëj dëgg la ñàkk sàggane ma fi taxu ma fee jóg wala ma gis kuy sàggane Sëriñ Tuubaa taxut ma gëj fi ak nit a mën fenn fu ne nga dem fa waxtu ne dëgg la
waaw ba mu fi ñëwut ñeneen a ngi fi ñëw sama demit ñeneen a ngi fay dem dëgg la ñëpp sëñ Tuubaa rek la ñuy xool tënk est-ce que te li Alaaji Baar daan wax lu fi am taalibe yoo ko fi def ci ma waaw aajo fajoon na fi ba tàyyi dëgg la waaw te ña ña ko fi doon def ñoo fi nekk ba léegi kon nag dañuy wër di ñaan ñaanal leen yàlla dooli xéewal yi taalibe yi amuñu bëgg amuñu bañ sëñ Tuubaa rek lañu bëgg rek lu ñu am sëñ bi ko moom dëgg la waaw loolu ñu nekk ci kanam ñu tudd ñaan waa kër sëñ bi lañ ñu kenn ni ci utu umpale ne taalibe yi bu toon ñoom àdduna tukki ci la waaw waaye sëñ Fallou nee na buñ lay wax taalibe sëñ baa tax waaye sëriñ bi buñ lay wax sëriñ taalibe baa tax dëgg la kenn mënu cee ñàkk sa morom dëgg la kon sëñ Tuubaa mi ñu doon dimbale nan ko xam nan ko gën a jàpp man gën a doole laxsaay suñu diggante ak moom est-ce que mënul fii suñu bopp tey mënul suñu bopp ëllëg mu tama mënal nañu ndax li li li jafe mooy dafa ñu dafa wax ne laata ma xam ma ma leen wax li li ma leen defal li ma li ma leen defloo damaa xam na ma leen defloo
dëgg la laata muy jëfloo dafa seet lam ñuy fayee ba mu doy ba natt mu doon loo jëfloo dëgg la kon nan am gox
macha allah dañ fàllu nee na nit aw làmmiñ ma ko war moom waaye wëtte moom làmmiñ bu dee nag bu la soo làmmiñ moomee lam wax da koy moo bàyyi woon suñu lépp ne sëñ Tuubaa jox na la suñu bopp dimbale nañu ba nangul na bu nu ko neexoon comme nu nangulee kenn ku nekk fa nga bëgg sa tànk di ko jox sa bopp bu la neexoon mu ne bu ko bengar ceeti te boo def gor loo ko bengar ceeti ba àddina walaay dëgg la kon bu nu bàyyee suñu liberté ñuy dox fu nekk ñu dafa dem naanu góor góorlu te dolloo ko ndukkal dañ ko defaral dëkkam bee nan fexe daal ba balaa waxtu wi déwén wala déwén jéeg fu waay toll ci àdduna da nga naan Tuubaa lii fu mu jóge macha lu allah mën a am la est-ce que am naa fi jamono yoo xam ne damaa dégg ñu ne directeur bi nga xam ne moo yoroon soko siin dafa xëy di wër ci Touba ndax commande yi jëm ci Touba ci Sénégal jaaxal na ko fu mu war a jëm dafa defee ne feneen lañ koy jëm mu ñëwee wër Touba gane lii moo lu mën a am la kon nag nañ ñuy góorgóorloo di defar kër itam ñu ngi ko góorgóorloo ba leneen li nga xam ne moo waral moo war a nekk ci biir ci dikk bi la mbedd yaag lamp yaag nangam yëpp ñu fexe ba defaree ko noonu sancaan yi nga xam ne dañ fay ñëw gàddaay fekk Serigne Touba te ñëw doole képp indi leen te duñ dellu yaakaar joojee ñu am Serigne Touba yàlla bu yaakaar ji def waaye ñun ñi fa nekk di bind ni ñoo ñoo ci tanaleen ñoo ñoo leen war a dimbale dañ toog
est-ce que gàddaay moom dellu bokk sa teggin kenn ku ne xam ne ñoom dematul dëgg la te ba seen ba seen yaakaar jëbee sëñ Tuubaa rek lañ ko jëmal dëgg la li ak wolof di wax nag ak bëgg yëg yëg moo koy fay ku bëgg sëriñ Tuubaa njabootu sëriñ Tuubaa gi la war a war a yëg waaw ak bëgg yëg koy fay ku bëgg sëriñ Tuubaa njabootu sëriñ Tuubaa gi la war a yëg njabootu sëriñ Tuubaa nag mooy képp ku yaakaar sëriñ Tuubaa te yàlla mën loola dara yëgal nit ñi te dimbale leen waaye yàlla ñëpp mën dara nag amiin yaa rabbal aalamiin parce que sëriñ Tuubaa macha allah sëñ Saliou bisimilah jërëjëf sang bi yaakaar naa ke kenn amatul loo ci dolli lu dul ñu waajal bis bi Mbàkke Balaay sa yaakaar naa ne bu fekkente ne am na lu des yaakaar naa ci yow la waaye mbokki jullit yeeg mbokki taalibe yi ñëpp commencé nañ takku sang bi di xaar bis bi kañ lay doon dimanche insha allahu rabbi yi ci Balak National Théâtre kon mbokki jullit mbokki taalibe yi kooku mooy Serigne Tako Mbàkke alaaji Sëriñ Tako moom Cheikh Mouhamadoul Fadal Mbàkke ñëw teewal ñu li nga xamee seen nii mooy liggéey Touba jëm ci kanam nag tur wi ku ko dégg ku nekk war nga cee defaat xalaat war nga cee gën a góorgóorlu waaye Touba jëm na ci kanam ci ni mu ko waxee ba pare sëñ bi moom loo koy defal sa bopp nga koy defal la muy am am na ko ñun lay dimbali te yàlla rek tax kon allah ji sëriñ Tako Mbàkke nekkoon ci yoon yi sang bi say kàddu yoo xamante ni yu mujj lay nuru waaye du doon yu mujj mukk ñu ngi lay siyaar bu baax yoon waa ngi fees dell nag ñëpp fas yéenee siyaarante ak yow kon sëñ bi bisimilah lan nga ñuy bàyyee incha allah rabbi ñu waajale ko bis bi.
li ñuy bàyyee mooy delloo sant yàlla bu baax rek dëgg la loolu lay julli ci yonent bi salaatu alayhi wa sallam di dolli di sant Serigne Touba di dolli di fàkk ñu maase di ñaanal Serigne Mountakha yàlla yàggal ko fi amiin yaa rabbal aalamiin Serigne Mountakha bu fi yàggee ñëpp danañ am dund macha allah.
suñu borom nag dumb te maye dara dara ci baaxu Serigne Touba gi te ak dund moom suñu borom a ko yor fu ko neex la ko yemale Dëgg la.
yàlla na ko xëccal ba ba ba ba ba ba ba fu kawe njot foo xam ne fii France kenn jërul lim waaye na ko yóbbu foo xam ne fii kenn mosu fa àgg dëgg yëpp dañ ne naa ko ku fi mas a ne lu mu fi am aji ay ci ci nekk waaye yàlla na ci yàlla na fi gën a jàgg yéen ñëpp macha allah wala kuy nekk mas a nekk sëñ Tuubaa rek yàlla na fi toog lu kenn lu kenn mas a toog te yàlla na ànd ak wér yàlla na ànd ak jàmm amiin yàlla na ñëpp it am xéewal amiin ba man ba ma man ba liggéeyam bii Amiin.
man koy jàpp jërëjëf Mbacke voilà jërëjëf ñi si sàmm macha allah bisimilah sëñ bi jërëjëf mbokk jullit yëpp a ngi ci yoon wi line baa ngi xonq cor kon kooku mooy alaaji sëriñ Tako Mbàkke sëñ bi ñu ngi lay daal di wiwi ndax déclasse bi la la nit ñi yërëme te ñëpp a ngi bëgg a gudd soññee kon Mbàkke yaakaar naa li nga wax jóge na ci sa xol waaye dugg na ci suñuy xol yàlla nañu yàlla jàppale ñu àgg ci bis ba ak jàmm mucc ga ànd ak xéwal jërëjëf Mbàkke
ku ñàkk sant la bëggoon kuy dàkk sant la bëggoon nee na ko Touba la bëggoon ku bëgg a jëf ca la bëggoon nga jëf ca Touba ca kanam. ba tey mu ne Touba xamoon sëriñ bu mag bi la bëggoon nee na ko Touba la bëggoon nga wéy ca Touba ca kanam. Touba nga sa way fajukaay Touba.
Touba ca kanam képp ku yëg lu mu joxe sëriñ bu mag bi la ko jox kookee la Seex Ami bu jox la ko ca Touba ca kanam te ku topp sëriñ Ami moom sëriñ Fallu Mbàkke defal nii say baaraam yow yaa bi ñëw gasuloo ci carrière bi ñëw tojuloo ci gamaa ji kenn sosuloo ci sosul ca Touba ca kanam maa ngi taxaw lu fii di ñaan maa ngi taxaw lu fii di ñaan mbooloo bi yàlla sàmm leen ba ñëpp ñëw yow ba ñëpp ñëw fekk sëriñ yóbbu Touba ca kanam am nañ ci barke Ramadan laa ko waatee naru naan ca kaw sara tàbbi jiram dëkk fa Touba ca kanam way naka la bisimilah bisimilah bisimilah waaw sëñ bi.
waa ñu ngi si jawri jawri borom mbuur sëñ Baye Fall.
sëñ Baye Fall ñu ngi lay siyaar la jox sa wàccuwaay waaw waay borom mbuur jërëjëfate waay yo ci wax ji nag dafa tënku nga ni sëñ bi wax moom mënu si cee teg dara kanaan parce que yére wuy si suba aw góor wuy si dimanche rek nu parce que yére wuy si moom jooju wax di si teg dara su may jëmale sama kàddu ma ko siyaare bale si buri mbàkk maaram ba noppi di siyaare sëñ Muntaxa di siyaare Touba ca kanam ñun ñëpp di siyaare borom mbuur mi nga xam ne moo tax suñu kàddu ñëpp dégg ko ndeysaan sama kàddu maa ngi ko jëbal ci Mika. Mika mi rek mooy suñu jëwriñ bu baax ji yar ji tey ji ak suñu yëlimaan ji daan tey ji sa jàll di Mbàkke.
lay dëgg foofu laa ko jëmale te damaa bëgg nag suba dërëm bu ma waay jox.
waaw addee sëñ Touba la ci kër gi dong laa ko jëlee. suba daal lu ma laaj ma lu jëm fu jàll dindi ci ak ju- jullikaay suñu kër sëñ Touba ji laa bëgg ñu defar ko. ci ci jublu daal loolu laa fas yéene du ma yor kàrante nag lu waay yor na ko xeet bu ma kenn dox wanta la macha allah li may def ci kër gi la jëm bu may jox addiya sax boo ma ko yéenee ni nga bàyyi génn boo ma ko joxe boobu naa ko def ci liggéey bi dëgg la lu ma laay jox suba ci liggéey bi laa koy waaw loolu laa bëgg ngeen daawante ko borom Tuubaa bu ma kenn jox wanta la ku bëgg bokk ci laa door yi bul ma jox wanta la li ma fa diggam sëñ Tuubaa ji est-ce que billahi wallahi taala danaa ñaan ci darje yoon tuba weeru koor wi darje Cheikh al Khadim mi nga xam ne moo moo nekk ca kanam képp koo xam ne yëkkati na dara lu jëm weesu phase dala wala lu mat phase dala jëm kaw yal na yàlla boole ci milliardaires yi yal na nga sëcc di ci darje yi ci may sëñ tuba sëñ karim loolu rek balaa tënku tey waaw ndax wax ji dafa tënku wallaay waaw ndax yërmande yàlla sëñ Saliou nee na dafa yaatu di ko katal yërmande yàlla ji dafa yaatu foofu nag asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh macha allah jërëjëf kooku mooy Serigne Modou Fall Baye Fall Serigne Modou Fall Baye Fall ñu ngi lay siyaar bu baax a baax la jox sa wàccuwaay kon day mel ni kenn ku ci ne xam na ni fi Serigne Takku Mbacke génn foofu la Serigne Modou Fall Baye Fall duggee bisimilah.
asalaamaaleykum maaleykum salaam wa rahmatulah.
maa ngi ziyaare man la soxna naati bëgg fàllu soxna naati bëgg Fall Touba Atlanta ñu ngi lay jox sa wàccuwaay bisimilah.
sëñ Saliou Sam maa ngi leen nuyu bu baax am xol bu sedd rek ak mbégte jërëjëf.
dikk Touba ca kanam di ziyaar nag sëñ Alaaji Takku Mbàkke suñu sang bi dëgg la di ko ñaanal mu yàgg ci loolu ànd ko dëgg la.
di ñaan ñëpp rek bàyyi ma kenn dama am xol bu sedd rek macha allah tabaaraka taala di woo ñëpp ñu nekk taalibe yi ñaan soxna naati ñëpp
dégg naa sa soññee de te Touba ca kanam. soxna naati nan la waa Atlanta waajale bis bii nga xam ne si ñu ngi war a fekk si Touba New York. bisimilah.
maa ngi leen ñëpp rek wàcc si ñu te jéggi dëgg la.
di woo waa New York ak Saalum Saalum yi bawal bawal tarmanko yi fàttewuñu kenn ku lim da ngay juum dëgg la.
daayira maam jaare yëpp ñoo ngi leen di woo waa Detroit Washington ñëpp fàttewuñu kenn maa ngi soññ ñëpp rek di nuyu bu baax suñu président sëñ Choy bu Seck ma say ndiir di dikkal Badiane Baye Fall Touba ci kanam nañu soññ ñëpp rek na ñëpp ñëw suñu tarixa yi tijaan yi laayeen yi xaadir ñëpp ñoo ngi leen di woo fàttewuñu kenn ku lim da ngay juum moom soxna jërë ngeen jëf jërëjëf ay kon ngeen jëf ah macha allah kooku mooy soxna naati bëgg fàllu wootee ba Touba Atlanta kon mbokki jullit yi mbokki taalibe yi kenn ku ci ne xam na ni lii waa Touba Detroit kasaalika naka noonu waa Touba Memphis waa Touba Washington Touba Philadelphie Touba Rhode Island ñëpp a ngi jëm si New York soxna naati bisimilah maa ngi lay dégg bu baax a baax ñu ngi leen di siyaar di leen jox seen wàccuwaay jërë ngeen jëf ndax day mel ni guddi ak bëccëg suba ak ngoon ñu ngi leen di dégg yaag soxna dikkal bajaan ajaratu soxna kumba Diop ci di toroy soxna njaay ñoom ñëpp ñuy jigéen ñi nga xamante si ni takku naan wax dëgg yàlla ne jigéen ñu mën góor soxna nday amar mu sëriñ saaliyu ñooñu ñëpp ñu war a ànd incha allahu rabbihi waa New York nag ubbi néeg yi wàcc lal yi fas yéene dalal gan ñi soxna naat yàlla ñu yàlla teg ci yoonu jàmm waaye tabla baa ngi xonq jur nan ngay soññee ñi nga xamante ne ñoo ñu wér waaye waa New York yaakaar naa li Serigne Tàkko wax tax na tableau bi fi ñu toll macha allah rabbi ku dugg rek boo tënkee sa morom mën a barkeelu soxna naati bisimilah.
jërëjëf.
bisimilah. soxna naati bisimilah.
asalaamaaleykum.
waaleykum salaam wa rahmatulah.
asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Serigne Modou Mbacke si
Serigne Modou Mbacke ñu ngi lay siyaar bisimilah ñu ngi lay jox sa wàccuwaay bu baax a baax Mbacke.
waaw Serigne ñoo ngi nuyu Serigne Saliou Samb ñoo ngi lay nuyu bu baax di nuyu Alhaji Serigne Sakho.
dëgg la wax dalal ak jàmm. nu nu am mbégte bu baax ci kàddu yi. foofu mu daaneel rek.
dëgg la.
bëgg ñëpp jariñu. parce que kon ñoo ngi lay dalal ak jàmm di daal. yàlla na la fi sama borom defal jàmm.
allahumma amiin.
te yéene ci nga xam ak lépp rek suñu borom defal na ko kawe suñu jox kon ñu président di ci soññ mboolem taalibe bi rawat président daayira yi nga xam ne ak yëpp loo xam ne bi nga xam ne ñuy yëpp fan la moom jógee Touba ba ñëw fii kon wax dëgg lu ko lu ko jar dëgg la kon nag ñun ñi nga xam ne ay taalibe lañ ñu fekk ñu kon fu ñu war a mën a nekk ci état yi war nañ faa mën a ñu fekk ci li nga xam ne mooy dëgg bu jëm te noonu ma ko waxee ci Touba it Touba moom dañ dëkk la boo xam ne ñun taalibe yi noo ko war a defar ndax boo doon wër ci àdduna dëkk moom rek mooy dëkk boo xam ne kenn mosu faa jaamu lenn bu dul yàlla la ko sëñ bi sosee ba léegi waaw te kon nag loolu war nañoo ñun taalibe yi ñu xam ne ñoom dëkk bi noo ko war a defar. te yàlla ubbil nañu bunt boo xam ne muy Touba ci kanam. rawatina nag kenn du werante wut ne kuy kuy wut dàkku dàkk dàkk sëriñ bi ak bëgg-bëggam. na nga xam ne moo di liggéey bi ndax sëriñ Mountakha li nga xam ne moo di sëriñ Touba. moom moo nekk ci kanam kon nag képp koo xam ne yaa ngi ci na nga xam ne yaa ngi ànd ci bëgg-bëggu sëriñ. kon nag ñun taalibe yi même fas nañ yéene incha allah lépp lu ñu am danañu ko def ngir dana danañu jóg bàyyi ci lépp ñu def ñu yor kon nag ñoo ngi soññ taalibe yëpp nu bàyyi lépp ngir seetu sëriñ bi ñu yor kon ñoo ngi ñaan sëriñ li nga xamee ne moo la yëkkat yëkkati ñu bëgg bëggu taalibe yëpp yàlla na yàlla nañu ci suñu borom defal ndam ndax sëriñ bi te noonu ko waxee gis bi fas nañu yéene de incha allah mu gàcceel bépp gis bu masaa loolu moom fas nañu yéene te bàyyi nañu waxtaan bu baax a baax kon nag loom lay dalal ak jàmm ñu rafetlu bu baax kàddu yi lu nag yoona yi yëpp ndax comme noonu ko suñu taal yi waxee woon rek manoon mbàcc manoon ngaa yeble rek waaye nag boo xamee ba yëkkat sa tànk moom wax dëgg yàlla kon ñun moom waratuñoo defet moom waratuñu war war lu ñu war a mën a am rek war nañu bàyyi yëpp ngir fekk ci la moom kon nag loolu ñaar nag sëriñ bi ñu fekk la fi ak jàmm te bis bi li ñu ko bëggee ak li nga xamee noonu lañ ko suñu sang bi daanale it ku ñu ñëw danañu ko amee nu nu nu noo suñu bor kon nag loolu bàyyi loo xel bis bu baax mu ngi le neuf semaine ci ñu nga ko kon dëgg yamale foofu kaat yi di bàyyi xam naa xam na lool waaye daal li nga xam ne yéene bi am pour wax ko daal bokk nañ ci man koo jotoon jërëjëf waaye suñu xol set suñu xol set na kuy suñu xelu dal na. kon nag Mbacke dalal ak jàmm yàlla yàlla nañ la fi nekk ak jàmm te bis bi yàlla ak jàmm mu amee ko noo xam ne ku ko dégg da nga xam ne da nga wax ne mënutoon a ñàkk nii la waroon a mën a def kon loolu leen di siyaare bu baax di Serigne Saliou Samb daf leen di siyaare bu baax di rafet taxawaay yi bu baax a baax di daal yàlla nañ ci daje taw yax bi.
amiin ñun yëpp suñu jëwriñ suñu yi ak. sëriñ Matay Ndiir nga xam ne it mooy suñu yëpp président ak soxna si tool yi nga xam ne mooy jigéen ji bi. lépp rek baal ak ko ci xam.
lu ngeen message rek jërëjëf Serigne Modou Mbacke ñu ngi la jox sa wàccuwaay dégg nañ sang bu tedd bi yow it noonu nga xamee seen ni bu la neexoon toog dina ngoy addiye waaye Mbacke kenn mënu la ci yaay ci njëkk yaay ci mujj kooku mooy Serigne Modou Mbacke mu Louisville wala ànd ak waa Touba Louisville incha allah rabbi dimanche ñu ñëw fii. ànd ak Serigne Tako Mbacké jiitu ci liggéey bi kon mbokki jullit yi mbokki taalibe yi Serigne Modou Boussa Diagne ñu ngi lay siyaar ci wax ju rafet yi nga xamante ne nii kaddu yi ñu génn dimanche bii passé ak Serigne Cheikh Amar Kasalika naka noonu kon Serigne Modou Mbacké mu Touba Louisville mooy génn noonu waaye yaakaar naa mbokk yaa ngi ci yoon wi mu fees dell bisimilah. bisimilah allo salaamaaleykum.
waaleykum salaam.
Ngoy Tall.
ajaratu soxna Mati Diouf.
ñu ngi ziar bu baax am.
ñu ngi lay siyaar bu baax te lu jox sa wàccuwaay.
ñaan yàlla fay la doom.
yal na yàlla defal la jàmm ci weeru koor wi ñu génn.
amiin yaa rabbi.
soxna Mati seen liggéey rafet na lool.
alhamdulilah.
guddeeg bëccëg suba ak ngoon yéen a ngi doon jàpp te teewut yaakaar naa ni tey ngeen gën a takkuwaat bu doon weneen weeru weneen woor it noonu ngeen koy def ànd kook jëwriñ ajaratu moom yi seen waaye ànd kook nag ki nga xamante nag dama bëgg doo nelaw tuuti dinañ ci téye incha allah rabbi yi ndax bu jéggee heure bi xajut ci li ci des muy sëriñ xaas Mbacke Daaru Salaam ndax mbir la moo xamante ne nii soxna Mati war nañ cee taxaw dox ci war nañ cee taxaw wax ci sëriñ xaas yàlla nañu ko yàlla fayal waaye bisimilah ñu njëkkanteeg heure bi.
lay tàmb jërëjëf waaye yow yàlla na yàlla fay.
dëgg la am naa fu heure bi yam rek ñu yam fa.
dëgg la jaajëf.
waaye ni ñu ko waxee rek macha allah li may njëkk wax mooy. mbokk jullit yi ci réew mi nañ jàpp ci rajo bi.
waaw góore waay.
ndax ku nekk xam na rajo bi ni mu demee. xam nañ ne yore woo responsabilité bi da nga ko yor pour le moment. yor boobu nga ko yore dénkaane la te dénkaane dafa fort.
dëgg la te ñun ñëpp lañ ko dénk. kon ñun ñëpp lañ ci bàyyi xel. benn wan dala moo gën zéro.
dëgg la.
buñ ko xeeb ci rajo bi.
jërëjëf ñëpp ci jàpp. ñun ñëpp a ko bokk nañ ci jàpp bu subaa ku ci ma la lay man rek na nga ko ci def ndax buñ ko fay lu tam du dem. te temps dafa cher. ndax dëgg la la nga naa aloo fay. nañ ci jàpp ñun ñëpp.
dëgg la li ci des mooy Baye Sall. ci Touba ci kanam googu ñu woote macha allah. moom moo woo boppam.
dëgg la.
Touba ci kanam. moo wutal boppam tur.
dëgg la.
dama leen naan ku am xel tey xalaat tur bi rek mën na laa yóbbaale. Touba ci kanam.
ak ku ne xam na ne Touba du dem ginnaaw mukk ci àddina. ndax Serigne Touba ko aaral boppam defaral ko boppam. waaye bu ñu ca boolee tudd ko weneen tur ne ca kanam nag. kooku moo yo- moo moo moo moo annoncé boppam. xam naa dolli rek lay doon waaye ñëpp a ngi koy waaj maa ngi wax nag ci ndigal soxna moom mi nga xam ne mooy suñu jëwriñ ndax soxna fa ama jeey ci kàddoom laay waxe ndax moom a jox kàddu gi waaye xam naa ni ñoo ngi koy pare ci kàttanu yàlla sëñ bi booy boo sa xel dal ndax taaliba yi nekk fii ci dëkk bi doxuñu ci dara lu ci yoonu liggéey sëñ sëñ sëñ Tuubaa kese la ñuy dox xanaa di woo suñu naw yi ñu ko bokkal sax waaye woowuma suñu mbokki taaliba yi ndax mbokki taaliba yi faaw ñu ñëw force ñu ñëw ndax ñun ñoo ko moom waaye ñi nga xam ne ñoo nekk ci waa kër Alaaji Malick ñi nga xam ne ñoo nekk ci së ñëpp rek mboolem ko julli rek bàyyi wuñ la ñu ngi lay woo ci bis bi bàyyi wuñu góor bàyyi wuñu jigéen di si jiital imaam yi nag imaam Ablaye Diop bàyyi wu ma kenn damay bañ a tudd tur di fàtte ñi ci des waaye ñëpp daal ñu ngi leen di woo ndax amuñu benn bés bu gën a rëy bis bi bés bi rek lañu am bésub sëñ Tuubaa bi rek la ñu am kon ñu ngi ciy woo góor di ci woo jigéen di ci woo mag di ci woo ndaw ñëpp ñëw soutenir ni ñëw sagal ñu ñëw nekk ci suñu kanam loolu la ñuy ñaan di ci woo saafara makitaal bàyyi wuñu kenn ci dëkk bi ñu ngi woo mboole mu jullit bàyyi wuñu kenn di yoon kat ni yor ko aye ni yor ko nag bu ayee war nañ ñoo xam ne dëkk bu mag bay ayee te ay jàmbaari fàttali rek a fi nekk jigéen ñu am joma fi nekk waaye di ko jiitale nag soxna aram aaj suñu mag maami daara ñoo koy teg ci suñu kanam ndax bu jiitoo lépp dina rafet waaye di ci teg nag ñëpp ñi nga xam ne ñoo fi yor association de Sénégal conseil général ñu ngi ko ci woo fàttewuñu ko ndaw ñu ngi ci woo mbooleem ku fi yor association bi Eh, waa ji bari dama fàtte turam bàyyiwuñu kenn ñu ngi woo mboolee mu jullit daal suñu yaakaar daal mooy mu jullit yëpp génn ñu ànd def lu rafet li ñuy def incha allah rabbi kon bàyyi daal ma yemale foofu wax ji rek waaw soxna Mati waaw ñu ngi lay siyaar ndax noonu nga woowee jullit yi soxna Mati jullit yi déggee nañ ko noonu soxna Mati boo yoree leetar foo àgg koo wax mu ne lii jëru ko ndaxte wax dëgg yàlla ñoo ko bokk te xam nañ ne fa mu jëm ci lislaam la jëm ñoom ñëpp takku ba jekk yàlla xam na ne démb laay wàcce nit ci place faa mu ne ma wallaahi waxi rajo la mu ne ma carnet lan soxla fii ci salon bi kon kookam ña ngi waaj nañ bis ba waaye jël nañ bis ba yor bëgg a yor carnet di dagg nga xam ne mooy carte de membre yi kon soxna Mati yaakaar naa loolu nga woote soxna Saafara Taal kasaalika naka noonu ñoom ñëpp dégg nañ woote bi kon nii nga ko rafetale yaakaar naa ne noonu la ñuy wuysee kon ñi ngi séentu ñëpp soxna Mati ñu ngi am cant ak ngërëm ci kattanu yàlla suñu borom jërëjëf.
yal na yàlla fayal la boppam yooyu tam sa taxawaay rafet na lool macha allah yal na yàlla fayal la ci barke Sall Xadim.
Jërëjëf, Diouf.
salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.
jërëjëf Diouf jërëjëf.
mboolem taalibe yi ne daañu leen yombalal ngir ñu mën a joxe seen i barkeelu fi ngeen ko baaxoo jaare mën ngeen ko faa jaare moo xam muy ci orange money ngeen def jeez 144 jeez 621 jeez mu tegtal leen ngeen yónnee seen barkeelu wala ngeen mën a jaare ci Tigo Cash ci 76 268 28 28 ak Touba ca kanam yàlla ñu bokk ci ñi jëmale dëkk bu sell bi di Touba ca kanam
bisimilah.
salaamaaleykum wa rahmatulah.
waaleykum salaam wa rahmatulah.
Touba ci kanam. ku ko ci sunu maam Saliou.
ah Cheikh bi.
waaw soo waxee Samb man la Modou Boussa Dia.
sëñ Modou Boussa ñu ngi siyaar bu baax a baax.
ah sa doyen kon ñu ngi leen di siyaar baax na ngeen yandoo.
ñu ngi lay jox sa wàccuwaay.
yàlla na yàlla boole taxaw Serigne Touba gàttandoon boppam.
allahuma amin allahuma amin.
barke Cheikh Mamadou Fadal barke Serigne Saliou.
amin yaa rabbal alamin amin amin amin.
ñu ngi baalu àq jurit yëpp dëgg la
ci weeru tedd wi nu génn.
dëgg la.
di ñaan yàlla sunu liggéey bi nga xam ne sunu borom moo na ko santoon. nu def ci sunu kem kàttan ba mu àgg ci njeexte la. yàlla na nu ko nangul fulal nu ko ngën ci ful. joxal na ko Serigne Touba Cheikhul Khadim mu dencal na ko ba bis penc.
amiin yaa rabbal alamin.
ndax moom lu mu denc du yàqu. su loolu jàllee itam. ñu ngi siyaare bu baax a baax a baax. Alaaji Serigne Tako Mbakke. mi nga xam ne dafa jóge Sénégal bàyyi ay yitteem bàyyi njabootam. ci lu toll ne bisu korité ngir jëmmi Touba ca kanam ak liggéeyu Serigne Touba bi. kon nga xam ne wax dëgg yàlla woyeful ci moom. ndax ku bàyyi bañ ne gannaaw suba la kori. nga bàyyi fa sa njaboot. ak say taalibe. ngir ndigalal Serigne Touba la nga loola tax a jóg ñor na la. kon noo ngi ñaan yàlla ak yonent bi ak Serigne Touba ci barke Cheikh Mouhamadou Mountakha mi nga xam ne. moo leen may ndigal ba mu ñëw. yàlla sunu borom defal nu ndam. lu kawe njortal doomi aadama yëpp nag Serigne Saliou.
amin yaa rabbal alamin.
ci ndigalal Serigne Pape Sey Dramé mi nga xam ne moo jiite day amika bi nekk New York. ak Serigne Fallou Diakhoumpa ak Serigne Pape Kodd ñoom. ak Alhaaji Modou Gueye takk ndigi ñoom. ak mboolem imaam yi nga xam ne ñoo fi nekk muy Serigne imaam Mountakha Ndaw ak Serigne Aliou Mbacké ak Serigne Abdou Samane Mbaye. ñu ngi leen di siyaare bu baax di leen balaax ñoom itam. bis bi di seen bis. bis bi nag bisu Serigne Touba la liggéey Serigne Touba la mi ngi mel ne ñu ne suba la màggalu Touba. kenn ku ne wata ba nga yor da nga ci def essence rek départ wuti fa ñuy màggale. bu la yàlla yóbbuwatim doo xool ku la dalal doo xool ku la teer Serigne Touba la tax a jóg Serigne Touba ngay wër. bu bis baa nag bis turu Touba ci kanam mooy Serigne Touba.
dëgg la.
képp koo xam ne ki yàlla def na nga ñëw fi daal. lépp luy sa aajo ci kàttanu sunu borom tabaraka wa taala ci barke borom Tuubaa borom bis bi yàlla na la ko yàlla defal ci barke maam Cheikh Ibrahima Fall.
amiin yaa rabbal alamin.
bu dee nit koo xam ne yaramam dafa naqar yàlla na wér.
amiin.
bu dee ko amul xaalis yàlla na ko am. bu fekkee ne nit la koo xam ne ay kayit a ko fi gàllankoor yàlla na ko yàlla ubbil buntu kayit bu ko bett ci barke Alaaji Fallu Mbàkke amiin yaa rabbal alamin amiin.
ci barke bis bi.
amiin.
soxna. moomi seen ak mboolem ñi nga xam ne ñoom laa mel ñuy daayira maam jaar itam. ah soxna si li mu wax nii kenn mënu cee teg dara. yàlla na yàlla fay leen. te def barke ci seenu njaboot. te li ñu liggéeyal Serigne Touba Serigne Touba fay leen ba ñu doyal fii fay leen fan jëm ci àjjana te mu jeex.
amiin.
te jigéen ñi nag yàgg nañoo doon ay jàmbaar ndax ku fi mas a dikk ñoo la teeru ñoo la teral. kon nag ñoom lañ war a jiital ñoom la ñu war a mujjee.
dëgg la yàlla na yàlla yàlla na yàlla àggale seen yéene te àggalee na suñu yéene nu itam.
amiin.
mboole ñuy jóge ci àll bi di ñëw itam. kenn ku nekk na xam ne këram la jëm si rek.
dëgg la.
Serigne Touba dong daal leen yëkkati. ak ndigalal Serigne bi. ak bëgg lu defar Touba li sëñ bi wax nag kenn lu cee teg dara. ndax moom dëkk ba la fa war lépp nun la war.
dëgg la.
ah comme li ma la waxoon sànq rek ne la. dimanche passé rek bu ma doon ndaw di toll ci wutub sëriñ te amaguma ko. ca Touba ca kanam laay dem jébbalu ca.
macha allah.
ndax danaa am lu ma leer ne lépp lu ma ca joxe ngir